suñu première naqar ci màggalu ren mooy ku ne xam na ne bi première safar ba ñetti fan après màggal Touba amul ndox fenn ci Touba amul ndox fenn fenn presque mën nañu wax rek tout l'étendue territoire local Touba amul ndox te pourtant selon certains ay sabotage moo ci nekk parce que gis nañ yenn forage dañ ko tëj ñu ko tëj ci yan base lañ ko teg est-ce que c'est un combat politique certains disent non disent non ñu ne c'est un combat économique parce que am na fi ñu am intérêt ci jaay ndox ñu ne konkat ñooñu xalaat nañ ne ñoo ñoo am pour déco mais de toutes les façons wane nañ des grandes forages ay kii yu mag distributeur d'eau yoo xam dañ ko tëj loolu lu lu ñaaw la ci dëkku Serigne Touba bi mais aussi lu ñaaw la ci dëkk boo xam ne si mooy deuxième ville démographique du Sénégal lu ñaaw en tant que nation lu ñaaw en tant que religieuse mais aussi lu ñaaw la en tant que patriote loolu euh, donc euh, euh, bëggoon nañ tàmbale ci loolu bi toppaat mooy l'absence de l'aide gouvernementale je repose encore la la question lan mooy problème mu Macky Sall ak Touba encore depuis Senghor ba léegi 1960 à 2021 soo xoolee nekk 61 années chaque année dañuy distribuer aide alimentaire population Touba surtout population périphérique bi nga xam ne ñoom dañu dañu dañu sonn mënuñu seen bopp te loolu defuñu ko pour dimbali Touba defuñu ko pour dimbali kenn mais dañ ko def pour dimbali nombre de pèlerins yi fiy ñëw nga xam ne 7 million de personnes selon les statisticiens que ñoom ñoo fi ñëw te ñi ci ëpp di ay sénégalais kon bien naturellement. l'État en tant qu'organe en tant que structure bien naturellement loolu fu muy daje ci adduna te amul fenn fu mu am ci àdduna fu koy fu muy daje nii Mecque nii Rome j'ai toujours l'habitude de le dire 7 millions amul fenn fu koy mobiliser par année donc Touba la koy def loolu yàlla bëgg loolu sa euh, iradatullah la wa machiatuhu donc euh, volonté volonté la donc kon l'État en tant que État en tant que tout le monde parce que l'État c'est tout le monde a l'obligation d'être présent mais sur le plan aide alimentaire l'État a été absent l'État dirigé par qui par Macky Sall qu'on connaît tous ñun ñëpp xam nañ Macky Sall est-ce que rancune la est-ce que parce qu'il a perdu Touba tax na chaque année cette fois-ci mu décidé dañ ko fi def en tout cas ça a été terrible je finirai nag de de de, taalibe Serigne Touba yi nga xam ne si jàpp nañ ci màggal gi ba nga xam ne si màggal gi mel na ni mu war parce que malgré l' absence de l' aide alimentaire de l' état ñu ngi sant yàlla ku ne xam ne ne màggal bu neex lañu am na volontairement taalibe Serigne Touba yoo xam ne investir nañ ci ñun rek en tant que structure investir nañ près de presque cent millions de francs fa distribué ko ci l' ensemble des grands muy nag muy gile muy ginaar yëpp aussi aussi aussi def nañ ko. j'encourage aussi un certain si Sylla aussi qui a beaucoup investi à Touba tout fu ñu dem fu ñu def enquête yi fekk nañ vraiment mu mu mu mu fekk nañ fa ay nag fekk nañ fa ay gileem fekk nañ fa ay aide alimentaire yoo xam ne si buñ laajee ñu ne ñu moom moo ko fi def te moom pourtant xamuñu ko ñu bëri Touba boo leen laajee mosuñu ko gis ñu bëri Touba boo leen tegalee image mosuñu ko gis pourtant côté doo boobu nous avons relevé plus de dix mille et quelques maisons yoo xam ne si moom moo leen ko te man il n'est pas politique ah man li ma xamoon fii di ko fi gis mooy ku fi ñëw même boo fi indee ñetti nag ci sëriñ bi di nga taxaw ñu ko dara mais moom malgré tout son investissement gisuma ko moom xamuma ko gisuma ku fi teg koo xam ne si moo ko def pour wane ne diw moo ko fi def kon loolu je pense que ñi am doole Touba ñëpp day mbokki taalibe ay junni junni lañ du kenn kenn ku nekk investir doy wuñ gouvernement ci dara doyewuñ ko dara ci ndox mi heureusement que Serigne bi jël na en charge loolu doyewuñ aussi aide alimentaire wu état moins de moins de 200 cent la daan doon or am na mbokki taalibe yu fi def ay milliards pour que nit ñi dund pour que pour que dara bañ a donc euh, sans compter aussi. Euh, côté nettoyage aussi au moins signalé que investir na fi plus de millions ci ay otoom auto société pour que ñëw nettoyer dëkk bi donc loolu ku ko def ku nekk tu as tous nos encouragements tu as tous nos soutiens de manière indéfectible ci loolu parce que ñun Touba rek mooy suñu mooy suñu jëmuwaay Touba mooy lu ñu bëgg Touba mooy suñu patrie at mi amoon nañ lu jege juróomi junniy milliards ci budget li ñu investir Dakar ci teer kese mu am saxaar buy daw diggante fanweeri kilomètre ak juróom diggante banlieue ak ndakaaru def nañ ci junniy milliards ñu ne ak lu topp Touba bu ñu fi defoon xaaj loolu téeméeri yoon presque rek soo fi defee benn bi rek ñu rek la inondation bi mais c'est manque de volonté de l'état état bi narul defar loolu lim nar rek mooy chaque année bu bu bu bu bu bu màggal jubsee mu ñëw ziar def naa ni def naa ni mais ñu ñi fi dëkk xam nañ ne c'est pas vrai Touba li fi indi embouteillage bi mooy parce que bu tawee kenn du jaar ci benn mbedd bu mag rawatina màgg bëgg a daje juróom-ñaari millions nit te amoo benn mbedd moo jaar c'est catastrophique moo tax Touba ñi fi dëkk doon nañ def 6 heures de temps ci diggante boo xam ne matul 3 kilomètres lan moo ko waral parce mbedd ci des kenn mënu ko jëfandikoo parce que dafa taw yaakaar naa deuxième ville kat euh, économique ñaareelu dëkk bi ëpp koom-koom ci réew mi war naa war loolu yaakaar naa ñaareelu dëkk bi ëpp nit ci Sénégal war naa weesu loolu te loolu lépp mooy Touba dëkk buy am lim bu toll noonu ci ay nit yu koy ziar par at war na war na weesu loolu ba tey mooy Touba kon manque de volonté l'état du Sénégal parce que c'est un problème connu ah rek pas récurrent mais permanent du problème buy ñëw jëm ak ñëw problème bu fi sax dàkk la boo xam ne mosuñu ko di sëriñ bi def na ci lu mu man ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal ñu yàlla fi di sëriñ bi jàmbaar la sëriñ bi def na ci lu mu man waaye am na loo xam ne réew moo koy def parce que contribuable bi ñëpp ñoo ko bokk kenn ku murid yi dañ ci am cër bu mag kon su fekkee ne gouvernement dafa ignoré de à ce niveau Touba donc euh, il faut le dénoncer. Touba am na jaay ndox j'ai même évoqué cette guerre économique la ñenn ñi xalaat ne xëy na sax moo tax ñu tëj yenn ñu tëj yenn grand. Euh, travaux yu mag yi ngir bañ ndox bi jàll am nañ xalaat loolu parce que dañ ko ah. gis nañ image ñu exposé ne dañ ko tëj que bu ñu ko tëjee forcément ñu jënd ndox am nañu xalaat loolu man xalaat xaw ma. E si fii tubaab na jaay ndox pas SDE am nañu fi am seen structure ñi ma wax ñi fi dëkk xam nañ ko ah tubaab dañu jënd ndox ñun xam nga loolu dañu jënd benn bidon fukki dërëm euh, vingt litres yi cent cinquante francs li ma wax nii moom euh, euh, gars yi bala duñu ma weddi. voilà donc. de e, fay ndox bi. fay du problème bi fay ndox bi ci laay ñëw parce que dama bëgg njëkk a wax ne rek expliquer pourquoi cette guerre bi am Touba boobu loolu dafa métti tëj ndox pour jaay ndox loolu dafa métti te am nañu xalaat ne noonu la demee problème bi sëriñ bi moom jël na ko en charge wax na ko ne moom dina si jublu xam nga Touba dafa am borom mu sëriñ bi. nee dina jublu sëriñ bi li mu investir def fi ay jànguwaay c'est des dizaines c'est des de milliards d'autres projets sont des dizaines de milliards bu sëriñ bi gàddoo loolu ne dina ko def ànd ceeg taalibe seen jubaay donc kenn mënu ko jiitu donc kooku c'est un c'est un projet en cours boo xam ne yaakaar nañ ne bientôt loolu rek la su boobaa it ku war a ku war a fay tubaab yu fay ndox parce que li ñu fay courant duñ ko fay ndox te ñu fay courant bu mat li ñu jënd ndox. par jour ci ay bidon par cent franc bu ko tegalee moo ëpp lu ñu waroon fay SDE kon bu kenn wax ne dañu bëgg fa Touba ba ñu fay ndox li ñuy fay ci ndox moo ëpp lu ñu doon fay bu doon bu doon facture mais simplement ça n'a jamais été organisé mais comme Serigne bi na jël na ko en charge moom dina ko def ah waaw góor Serigne bi yal na ko yàlla yal na ko yàlla euh, guddal fanam te wéral ko que Macky Sall a perdu Touba ci Ablaye Wade premier tour deuxième tour ñu ñëwaat élection juste législative, Macky a perdu la commune de Touba malgré qu'il a gagné le département. Depuis lors, Macky Sall n'a jamais gagné Touba. Mon tribut, qui rancunier, mon mom, du fal d'homme Touba, jamais. Il mais, mais écoutez, juróomi junniy milliards yi ñu am ci at ak ni population murit toll ci Touba ak ni Touba amee importance ci Touba Macky Sall waxaat na ko fi ne moom 12 ans mi 23 milliards la fi investir nga xool 12 ans yi am na fi lu ëpp 50 mille juróom fukki junniy milliards soo jëlee ñaar fukki milliards ak ñett day mel ne 0 virgule 0 virgule 0 virgule 0 ci Touba ci fukki at ak ñaar est-ce que loolu mooy investissement est-ce que noonu la Touba tollu ci Sénégal deuxième ville démographique deuxième ville économique 50 mille milliards loolu mooy investissement. je pense que non donc désamour boobu était un désamour bu yàgg bu fi nekk rancune Macky Sall moo ko indi ça veut dire que depuis mu toog daal nee na moom du fal doomu Touba def na ko fi ci diggante bi tànte ko mais mënul yàgg teg na fi kenn après mu dindiwaat ko bi yoon ñëwaat na même falu doomu Touba mais au moins fal na ko dëgg ci département bi plus ou moins bon Amadou Ba il faut dire qu'il a le certes il a le profil fi Sénégal masa ak ci taux euh, économique bi gën a mag ci am la ku xam Amadou en tant que directeur général euh, directeur général euh, impôt domaine ku xam Amadou en tant que ministre des finances il a le profil certes mais et puis am nañ ci moom yaakaar man personnellement j'ai l'espoir à Amadou ma que je connais bien et boo xoolee depuis ñu fal Amadou même les adversaires les plus irréductibles du régime am nañ petit espoir ñu ngi toog di xaar mais simplement ce qu'il faut alerter c'est que Amadou est dans dans et <coughs> Amadou dirige un gouvernement dont c'est Macky Sall qui définit la politique en tant que président de la République c'est ça le problème Amadou jàmbaar la am nañ yaakaar ci Amadou Amadou am na xam-xam bi mais Amadou ci gouvernement bu Macky Sall fan la nekk. si le pre si si le bon bon je ne dirai pas je ne dirai pas ainsi mais ce que ce la réalité montre est là ça veut quoi le rejet est général vous l'avez bien constaté comme moi comme tout le monde n'est-ce pas donc euh, Amadou am nañ ci Amadou yaakaar ñi ngi xaar Amadou def ay résultats mais aussi notre souci c'est que Amadou. politique bi muy bi muy jëfandikoo Macky Sall dama koy définir et Macky Sall toujours le problème man moom bu ci Macky Sall desee jël naa samay bagage dem parce que awma ci yaakaar c'est ça la vérité mais nag n'empêche que j'ai assez de de de de d'espoir à ah, Amadou Ba vu ses compétences vu son parcours hein bon je ne le prépare pas en tant que politique loolu politique sama yoon nekku mais li ma gis ne dafa gom na fi mais nag mu des lu mu fi def de xam man. su ma tàgg nit yëpp mooy on verra mooy lu mu fi def daal ñu gis ko ñoo ngi xool ba xam je l'invite nag amadu Ba en tant que diplomate j'adresse pas à l'économiste mais j'adresse à euh, au aux diplomates que problème Macky ak Touba lu yàgg la na ci jéem lu mu man injustice bi ñu ma Macky Sall ma sa infligé nga xam ne boo nee Touba rek mu dindi ne ñun du ñu ay jàngkat te ñu tax koo jàng téeméeri junni milliards yi mu ne cadre dañu gën koy cadre téeméeri junni yoon injustice boobu mu ne doy fal kenn si Amadou Ba réussit de la changer ça va être très important boobu daal c'est un petit message j'aurais aussi voulu vu j'aurais voulu voir Macky sa euh, ku mel ne Matar Cissé c'est un brave combattant je entre dans le bien sûr parce que su fekkee ne ñu def un combattant pour l'intérêt général hein waxuma nag combattant politicien bu ñuy saagaloo diw wala saagaloo diw boobu amul solo mais su fekkee ne dañu def benn gouvernement donc de combat pour l'intérêt général, Matar a bel et bien sa place. Parce que vu aussi son parcours, euh, je ne dirais pas exceptionnel, mais très très très remarquable, bien naturellement, il a sa place dans un gouvernement, dans l'instance dirigeante de ce pays, ce fait qu'il y a une compétence, ce fait qu'il y a aussi engagement. mais avion boo xam ne ki n'est pas nécessaire Touba gi sant sant bi ci sama ginnaaw ni ma 200 mètres amul ambulance bu ñu transféré soxna si ñu transféré mu toll ci kii bakkanam ci xotti nañ combien d'hôpitaux qui n'ont pas ambulance 100 milliards peut acheter combien d'ambulances 100 milliards peut construire combien d'écoles abri provisoire yaa fi buy taw buy dañuy tooy 100 milliards lan la ci man soxna yi bu ñuy mucc 100 milliards euh, lan la ci man amoon Sénégal amoon na avion am na réew yu amoon avion avion n'est pas nécessaire Macky Sall a fait pire il a dit que dafa yërëm ministre bi ci biir avion bi parce que euh, ministre yi dañuy sonn dañuy nelaw le roi du Maroc Le Maroc est 10 000 fois plus brillant que le Sénégal. Le roi des Maroc n'a pas d'avion, royaume. Et c'est un roi. Il n'est pas président. Parce que simplement, il a piqué à son peuple, ce qui n'est pas le cas de Macky peut-être. boo demee Matam nga président Macky Sall dëkk sareet la ñuy transféré soxna suy suy suy mucc waa dama ne loolu ñaata ñaata avion présidentiel bu jar téeméeri milliards. te attention ñu soog a ci biir da ko da defaraat ah. loolu ñaata milliards la parce que nee na du gis rouge ñu dindi rouge yaag yooyu defal ko ci na mel bu mën caa tëdd doore ko ba mu kii quand même vous me parlez du luxe vous m'excusez ci baatu tubaab ngi koy def pour pour euh, bakkanam mais boobu nit ñaa ngi bëgg a dee am naa gàcce tuuti ci melokaanu opposition bi ñenn ñi parce que mënoon na gën rafet li ñu doon xaar du lii treizième euh, législature bi ñu doon xas wax dëgg yàlla ñoo teneegum ñi fi nekk ci li ñu fi waneegum donc xëy na ku nekk ak sa façon de faire ñoom seen opposition façon yooyu la mais mën na gën a civiliser mun gën a bàyyi xel réew parce que am na gestion bu ñuy amee je connais bien Macky Sall day passivité supérieure day gouverner sans euh, assemblée euh, assemblée pendant parce que il a le pouvoir attention danger yooyu yëpp lu mat a bàyyi xel la ci comportement les euh, les uns et les autres c'est extrêmement utile sauf si j'ai entendu un député récemment bu ne moom euh, ci jàppale gu muy jàppale nationaux yi que du jël carburant wu total kooku moom bu ñëpp defoon noonu yëfi jàll. ah Guy Marius Sagna effectivement effectivement lui ah exactement donc euh, gis nañ fi problème bu amoon si Ecotra heureusement que sax temps yi lijjantiku na mais yëpp ay nitu sénégalais la jëloon te gis nañ problème yi ñu fi amoon gis nañ problème yi fi yeneen yeneen nationaux yi am kon suñ imposé ne moom nañ ko jox euh, Elton wala wala EDK EDK de man vraiment bëgg naa ko trop j'aime bien EDK parce que cinq cinq ou sept fois yoo xam ne doon naa tukki yam ci bëgg julli nag fekk fa jàkk ma julli ñu ne ma non yëpp ni la mel te ki ko moom defe naa c'est un Sénégalais ma di ki ko moom c'est un Sénégalais pense ok donc très honnêtement it ay Sénégalais laa gis ñu fay liggéey kooku nag ku bëgg a jëmale su kanam sa réew kanam wala nga bëgg sa jeunesse parce que Macky Sall il a un problème réel avec la jeunesse bu am bëgg a lijjanti sa xeexu sa somage mm, yu réew sa ñàkk liggéeyu réew xëyu ndaw yi dëgg-dëgg kon ñooñu da leen dooleel kon nag ku ne foofu lay jël kooku moom il a tout mon soutien lui aussi Guy Marius Sagna ci loolu na taxaw de na ci ñëpp taxaw te ku nekk aussi néew bi nga nekk na nga exiger loolu mu nekk un débat national ñu imposer ko pour que tout gouvernement qui viendra après pendre compte ci loolu. bon je voudrais pas parler de Pastef. parce que Pastef euh, organisation jàmbur la mais je les invite d'être beaucoup plus sérieux quand même ces gens là aussi tamit bu njëkk Sénégalais yi. buñ ne su ma yéegee def li yéeg def leneen loolu trahison la loolu wax lu dul dëgg la loolu comportement opposant bu ko am bu yéegee lu muy mel bu yéegee yaay pire que Macky Sall une fois soyons sérieux loolu la am loolu lañ ci wax. gis naa ki daal ñoo xam ne seen photo ñu Macky Sall àndoon ak ñoom feneen kon dafa mel dañ leen a gàddu. teg leen fa ne leen eh dinaa fi romb su ma fi rombeekat kaay yi ne ma lii xam théâtre yooyu nag Sénégal yi passé nañ ko fii dof nekk fi ñun ñi jàngul nasaraan sax alxuraan lañ jàng sax boo ko defee ñu xam waxuma laan nag ñu ci des bi mu ko defee immédiatement dañu décortiquer gis ne ñii lii montage la parce que ñii gisoon nañ leen fenn ak Macky Sall kon ce n'est pas le peuple c'est c'est un c'est groupe bien déterminé euh, importé hmm, pour indi leen foofu pour que sa romb fa mais bu ñu bàyyi woon Macky Sall ak peuple bi rek tout directement yaakaar naa doon nga dégg tout sur ce dossier soxna si nga tuddoo ak euh, sëñ bi ci des sëñ bi politique euh, sëñ Sonko ok ba muy am données yu bees fa ma ci nekkoon rek laa ci nekk Macky Sall qui ah parce que néew ma nag Sonko deful dara wóoruma mm. néew ma Macky Sall yóbbu Sonko fam demoon waxuma loolu mais dama ne li ko indi fii mu nekk ba moins d'une semaine ñu coordonné gendarmerie à la au par au parquet hmm? jóge parquet dem assemblée pour demander pour demander euh, lever immunité parlementaire Sonko jusqu'à ce que ñu def ko très rapidement de manière urgente parce que yëpp par opération d'urgence la projet d'urgence la dossier bi jaar fi mu jaar fépp te parquet ñaata junniy plainte ñoo fa jiitu nekk fa ay plainte yoo xam ne viol la manque fa ba léegi donc kon coordination boobu yëpp pour ne pas dire cette synchronisation une seule personne qui a ce pouvoir mettre la main sur la justice le parlement et l'exécutif c'est l'homme Macky Sall puis dossier bi ni mu déroulé nga xam ne colonel Macky Sall génn na ci kooku la dëkk ba mu des nag bu amee nouvelle donne buñ demee nag yoon ba plaignante bi ne xool leen sama preuve lii su boobaa chaque chaque circonstance si une appréciation particulière su boobaa chaque jëf ju bees ju nekk dañ xoolaat ne lii lii la lii lii la wax ci liy dëgg rek de manière très objective mhm. sans parti pris sans féete ñii wala féete ku ma xam sëñ Modou Moussa li ma ci dugg laaj rek li ma gën xaar mais ba ñi may toogee nit yi wax maa ngi defee ne daal Macky Sall moo bëgg fexe ba Sonko nekk candidat tax mu def ci loolu lépp loolu laa waxoon loolu laa jàpp ba tey di xaar nag ba xam dina am nouvelle donne wala déet su amee nouvelle donne benn appréciation lay doon su amul nouvelle donne nag maa nga fa ma nekkoon Karim Wade duñ ko def nii yéen nit sénégalais day bëgg dara ak contraire loolu da nga bëgg Karim Wade Karim Wade mi ñu ko téye Sénégal gépp ne nañ ko bàyyi daa war a bokk doomi Abdoulaye Wade nangam Macky Sall lañ kon nañ ko amnistie ñu ne non du fi amee même soyons sérieux ba ci see ba ci seete des partisans leen bëggul Karim dafa mën a bañ loolu mais Karim Wade warul bañ loolu mais pourquoi ah, ah, ah, ah mais quand même donc nañ bëgg dara wala ñu bañ ko man daal lu tax jeu bi ouvert ñëpp bokk ci ñëpp bokk démocratiquement parce que bi ñu dindee Karim Wade dafa naqari woon kon kañ bu ko ci boolee dafa ma war a neex mais waruma am beneen avis contraire je me la madame je pense que nous avons